Balla Gaye 2 mu ngi noonu di dugg si di nuyonte ay pulaayam ay rakkam fameem ñi nga xamante ne ñoom lay àndal saa su ne di yëngu ci làmb mu ngay nuyoo gis nga am na lu mu wax Fils de Balla wax na ko xaw ma lu mu ko wax joxoñ na mu ngay nuyoo benn par benn ndaysaan ma nga noonu ma ngay wax ma ngay wax ak Fils de Balla ma ngay wax ak rakk Fils de Balla bi gis nga koo koy yan bu diis xëcc na ko xëcc na nit la boo xamante ni dafa bari kaf moom Balla Gaye 2 mu ngi noonu di dox di ñëw ndeysaan boo ko xoolee gis ni mu ngi ci état de forme bu jaar yoon mu ngi préparé mbaam ak waa géejawaay waaye tekk wax la Balla Gaye 2 mañ doon gis ak Balla Gaye mii ute na macha allah gis ngeen ko mu ngi noonu di dem ci ruq ba dem na xam naa ne am na lu mu fay wuti